jëkk remercier président makisal jot naa lettre bi nga xam ne directeur de cabinet bi euh, monsieur Mahmoud Saleh bind nañu ko dinaa remercier tam ministre de l'urbanisme bi fi newoon muy Fofana ndax keroog bi mu amee si problème dëkk bi bëgg a jóg ñun ñoo dem seeti ko ne ko arrêté bii dafa am ay erreur plan bi ñu indi dañu wax ni super plateau dafa occupé seeni boroom ngi laaj këyit ma ne Fofana boo bëggee léegi ñu ànd ci super plateau bi dinga gis ne c'est pas occupé bu ne ma dinaa ko téye comme si ñu nañ ko ba pare du ma def notification yi alhamdulilah euh, ministre bi respecté na engagement ki ko remplacé tamit monsieur Sow mu ngi ci engagement yooyu ba tey pour ñu am jàmm ci dëkk bi donc maa ngi remercier autorité yi euh, administratives yi mais tamit maa ngi remercier tribunal parce que bi nga xamee ne bii dëkk bi jog na ne boo leen mënul arrêté coxeur yi ñun dinañ leen arrêté dëkk bi yéeg ci super plateau bi di bëgg indi ay bain de sang ñuy leen may leen ñu wax ak waa tribunal bi demee tribunal accordeel ñu nañ ñu ay prénotation bi ko ñe coxeur yi bëggee dindi tamit tribunal fexey na ba prénotation yooyu ñu ngi taxaw ba tey donc ñu ngi remercier justice ñoom ñoo tax alal ji nga xam ne coxeur yi doon nañ ko bëgg a jël yàquwul ñu ngi remercier tamit waa taxaw tem parce que euh, coxeur yi dañu amoon armée maanaam milice waaye bii taxaw tem ñëwee waxatuñu loolu loolu laa bëggoon wax ci ay remerciements di remercier ñëpp ñi nga xam ne dañuy taxaw ci intéret Wakam dinaa wax nag tey ci conférence yi fi jaar conférence yi fi jaar am na ñoo xam ne wax nañu ci lépp luy coutume mais am na fu ñu censuré film bi coutume bokkul ak régime présidentiel nga xam ne président bi mooy yore arméem yore ay milicem yore ay euh, gendarmerie ak police ak yooyu ñoom la image boobu lañ jël defe nañ ñoom ay régime présidentiel moo ne ci coutume coutume parlementaire la coutume penc yi ñooy choisir seeni représentant représentant yooyu dem ci fi ñuy wax collectivité am na une partie ñu nekk sama ginnaaw ñi des euh, corona moo tax aw ñu leen mais coutume seen alal seen jëf seen moyen yëpp collectivité bi moo koy gérer c'est pas un jaraaf un ndey ji réew un qui que ce soit parce que régime parlementaire la bokkul ak régime bii am Sénégal nga xam ne c'est un régime présidentiel pouvoir renforcer fii jaraaf amul droit fekk suufu lébu yi siif ko jox ko ay ay ay promoteur de presse ak yooyu pour am buzz non jaraaf amul droit jël yëfi jàmbur jaraaf ak ay coxeur am amuñu droit siif alalu jàmbur looloo tax biñ demee tribunal ñu jox ñu raison biñ demee administration ñu jox ñu raison donc jaraaf yi waroon nañu wax ni Euh, collectivité euh, euh, lébu coutume bi am na ndey ji réew am na jaraaf am na saltige am na ñëpp mais gestion alal ji régime parlementaire la gestion alal ji penc mu ne kañ choisir mu dem ca collectivité ba ñoo ñu collectivité boobu ñooy joxe mandat ñooy def nii ñooy def naa ki nga xam ne mooy imaam lamin Diagne nekk sama doomu maam Isaaxa Diagne dafa yékki ay kàddu ci ay bés yi ñu génn woote jàmm ci dëkk bi te it loolu mooy taxawaayu kenn ku ne ku ñu tuddee responsable ci dëkk bi dëkk bi jaxasoo na lool waaye notable yi nga gis ñu taxaw suñu gannaaw jàmm rekk lañuy dox kenn mësu leen dégg ci safaan ba tax na imam lamin Diagne dafa joxe appel appel boobu mu joxe loolu mooy li nga xam ne moo ñu tënk boobu ba léegi bëgg nañu juboo waaye ana nan lañuy ñuy juboowe loolu moo tax appel boobu mu lancé maa ngi am yaxin ne imaam yi nga xam ne ñu ngi ci wakaam boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci wakaam ah ñi nga xam ne wóor na wóor yàlla ne seet nañu ci wakaam ñooñu war nañ mën a jóg def benn commision xool parti yi nga xam ne dañ wax ne jubbawuñu bu boobaa danañu toog de manière officielle même état bi bu si doon dugal loxoom yebal ay ndaw ñu indi huissier ñu toog consigné lépp lu ñuy wax si jubbo bi si kayit ba ku def lu dul noonu yoon dal sa kaw waaye juboo juboo boo xam ne amul benn garantie lii tax ñu tas kenn ku si si ñun xam na ko parce que dëkk bi mu ngi doon doxee noo xam ne neexul ma sàmba neexul ma demba ñu tas waaye suñuy juboo nag dafay jaadu de manière officielle laa wax ak ñi koy ñi ñi ñi koy seq ñëpp les principaux acteurs ñu toog la ñuy juboo ñu def ko ci kayit ñëpp ànd ci ku jalgati yoon bu subaa yoon dal sa kaw bu fekkee boobu juboo la ñun ànd nañ ci boobu juboo o passage ñu ngi sant le préfet de dakaar ndax juboo rek moo ko soxal pour jàmm am ci dëkk bi ànd nañ ci juboo bi waaye nañu ñëpp toog ñëpp toog état arbitré ñu wax na lañuy ñuy juboowe bu boobaa ñun dinañ ànd ci loolu beneen deuxième point bi bi may yëkki moo di aéroport bi aéroport bi parce que aéroport bi taxaw na rek ñu ne nañu juboo déedéet déedéet ñun liñ doon dunde ba tey mën nañ koo continuer du dundee aéroport bi nag dafa am ay ay enjeu enjeu yooyu kenn ku ne si ñun muy ñiitoog sama gannaaw di notable yi xam na ne aéroport bi am na histoire état du Sénégal maa ngi koy rappeler président Macky Sall maa ngi koy rappelé ne aéroport bi am na ñaari réquisition yoo xam ne moo ko régiroon su fekkente ne ñoom amuñu archive yi archive yaa ngi fi te dañuy bañ suba ginnaaw suba ñuy dem ay cours international ak yu kenn xamul di dem ci yoon kon aéroport bi am na histoire ñaari réquisition moo ko régiroon benn bi di juin numéro 41 74 en juin 1943 beneen bi réquisition bi c'était le numéro 42 27 de février 1945 yoo xam ne le tiers dañ ko octroyé Wakam de droit les archives loolu mooy wax nag c'est gratuit dañuy bañ suba ñu naan am leen ko état indi leen ko Wakam bañ fa laa yegg. dëgg bi mooy dëgg bi mooy dafa am ci wakaam benn trio boo xamante ne dañu ànd ak seeni kurtisan jokk ne faw alalu wakam ñoom ñoo koy jël di ci def lu leen neex mu am ñu jokk taxaw def leen face ne ñoom dëgg lañuy doxal seen alal du ñu bàyyi mu dem danañu taxaw ba nga xamante ne dëgg ak équité moo fiy jub loolu moo am wakam ñooñu nag mooy ñi ngeen gis ñu toog nii ak ñeneen ñi ci dëkk bi dem nañu déclarer ne titre foncier wakam dafa réer mu nekk lu garaw te titre foncier Wakaam kii ko yor ma ngi fii dem nañu dindi leve indivision Wakaam maanaam li ñu marqué woon ci titre foncier bi wane ne maanaam pour ñoŋol ko wane ne kenn waru ci mën a def dara te ñëpp ànduñu ñu fexe fexe ba indi seeni pexe ba dindi ko kenn na nga ci ci ñu gannaaw nii muy Mamadou Ndoye bokk na ci ñooñu dugal seen tur ci biir ñu ne assemblée bi am na fekke ne ko. te fekkewul yëgul tinul noonu la ñu naxe juge bi ba juge bi leve indivision bi ñu ne déet na waay ñu jog dem dindi lu tolloog ci terrain football noonu lañ ko mun a xayma huit mille sept cent ñu jox ko ku ñuy wax Gassama sous le prétexte que Gassama daf doon liggéey moo doon terrassé Gassama boobu jog dem na ba jaay ci ñetti parcelle ci loolu ngeen di déggee seen confrère boobu ci nekk ci presse écrite ñu koy wax Madiambal ca loolu la jënde boo koy seet donc Madiambal ak Wakaam joguñu am problème directement mais ñu ngi amee problème par l'intermédiaire de Gassama ak ki ko daggal jaay ko te waxam waxul ne ko joxal ki am na ci aussi beneen beneen raison saltige wax na ko jaraaf wax na ko mooy mbiru aéroport bi yow boo nekkee ci mbir nga dem def ay njombe ci li nga moomal sa bopp yor ko muy tiit foncier nga bokk ko ay nit ngeen def ci njombe yu rëy rëy ngeen dama dem ba am blocage ngeen na aéroport bi tey taxaw na ak yeneen domaine privé de l'État nga jog nga ne ah xaaral ma jéem a wax ne Wakam jubboo na su ko defee ñun bu ñu demee. la nga xamee ne moom lañ fay joxe ñu jox ñu ñu man see faj suñuy soxla ndax ñu bañ ñu tëj ndax kat ñun dañoo ameel ay nit ci suñu alal te mënuñu ko fay loolu dong nga tax ñuy def con point de presse ñoom donc ñaar yooyu la ñaar yooyu nit ku jóg dem dem ba am problème confronté à la dureté de la vie sa ngor mayu la nga toog nga ne maa ngi dem kat waaye demal waay waaye nag amal ngor bul tuumaal bul xas dation en paiement boobu muy wax foog ñu leeral leen ko Jaraaf Saybatu Gaye musul def dation en ak kii que ce soit musul am d'abord dation en paiement ci ci ci droit ci droit ngeen may ma rek foofu ma dugg tuuti ma leeral leen dation en paiement ci droit ni ñu ko définir dañu wax ne dation en paiement c'est le paiement d'une prestation autre que celle primitivement prévu avec l'accord du créancier et qui libère le débiteur. Il y a la notion de créancier, la notion de débiteur et il y a la créance qui est là. Ça veut dire donc que daction en paiement, mais ça exclut la concomitance. jaraaf Seybatu deful li Youssou Ndoye def defu ko yàlla na ko yàlla yërëm defu ko parce que soxlaaw ko woon parce que yàlla moo ko teral soxlaawu loolu donc dama ne ci gàttal loolu rek moo ñu metti ci point de presse boobu ñu dégg ci tuumaalente yi. Ouakam benn de benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar les gens que tout le temps ñu nekk ci presse bi di wax sont des brebis galeuses xam nga troupeau boo gis dafay am ñoo xamante ne nii. ils sont là juste pour semer l'ordre le désordre mooy ces gars là je ne vais pas les citer nommément parce que discussion de bas étage kenn du ko séq ak ñooñu ñun dañu am benn éducation bu ñu jox lébu dafay gore ba dee suñu yaay yi dañ daan xëy paa yi duñu duñu yor dërëm ñu jël cin booyal ma ay matt jël cin teg si teg si ndox muy bax pour ñu dalal suñu xel ba heure bu ko yàlla indee rek ñu def bii mais du tax ñu ñaani ñu duñu yalwaani duñu sàcc ces gens là nag dañu jaay seen ngor jaay seen dignité dañu sax gumba faf laa laa bëgg a wax parce que gis nga alalu mbooloo bu ko kenn nit bëggee lekk day fot ñooñu loolu moo leen jàpp te suñu xamoon histoire Wakam dinañ def attention ñun jigéen moo ñu jur de ay jigéen ñoo ñu yar nii ñoo ñu wan ni ñu defee ni ñu te comporté woo si kër ni ngay comporté woo envers la société et tout mais l'histoire de Wakam nous a été contée par des hommes suñu ay maam ak suñu ay papa gis nga fii nii bu fekkoon ne ay xuloo rek la ak sànninte ak yi ku fi am suñu petit carnet ñu ngi sa encyclopédie maam toog si déggoo ma de waxuma dictionnaire waxuma waxuma kaye encyclopédie maam lañ yor toog si mais loolu taxu ñu jóg dañ bëgg rassurer la population de Wakam surtout les dames particulièrement am na maire yoo xamante ni ñu ngi ci biir am na ñoo xamante ni comme man dañ yàgg am lu dagg seen xol ñu nekk seen coin mais il est temps de sortir moo tax ñu génn en général doo gis lébu mu toog ay góor di toog jigéen nekk si mais fu góor ñi toogee balaa ñuy génn waxtaan nañ ak jigéen mu xelal leen paa yi dañ doon wax ah maire yi ñu leen di tegloo seen tànk foo xamante ne te suñu xamoon histoire Wakam ah, dinañ def attention suuf Wakam paa yi def nañ fi tooke boo xamante ni ku ko doxalul yoon ku si doxalul yoon jaarale ko fi mu war a jaar wallahi azim waxuma la yow mais sa doom ba sa sët dafay daj patir si affaire boobu noonu dina subir les conséquences loolu moom amul sax jiixi jaaxa